kon gars yi yéen a ma gën a xam maa ngi leen di ziar ak lu Facebook ak lu TikTok comme li ñu ko waxee fatt fépp pare fépp pare na fépp fatt fépp pare fépp pare na fépp ma répété ko fatt fépp pare fépp pare na fépp gars yi maa ngi ziar di leen bëggee di leen jaajëfal hmm? je pense que heure bii démb on était un peu nuancé heure bii démb. démb wala barki démb laay wax sax am na xel yu jaxase woon am na xel yu naqari woon am na xel yu métti woon mais dañuy del si à chaque fois rek ci politique bi quoi yaa ngi dégg parce que man je l'ai toujours di Macky am na lu mu moom am na lu mu sañ <laughs> ñun am na lu ñu moom am na lu ñu sañ mooy en tant que sénégalais am nañu sañ-sañu créer parti politique en tant que sénégalais am nañu sañ-sañ am parti politique am leader en tant que sénégalais am ñu sañ-sañu am ambition soppi Sénégal voilà en tant que ne tout court am nañu droit bëgg am nañu droit topp am na ñu droit yaakaar en fait yaa ngi dégg et loolu moom moo nekk moom moo moom moo am tey voilà mais fi may commencer d'abord gars yi dama bëgg ñu déggoo ci benn affaire vous savez le 17 le 17 c'est une victoire man dama jàpp ne c'est une victoire en fait qu'on a eu parce que le 17 quel soit manquement par heure yi nga xamante ne ni mën na ci am am na loo xamante ni jiit na le 17 mooy la solidarité. moy l'entente ñu booloo nek ben am ben objectif am ben ambition c'est très important et da fay findel que ñun buñu andé rek on peut avoir tout ce qu'on veut en fait amna lo loo ci loxo la nek tay le président Ousmane Sonko waxna parce que man fofu lay commencer en fait nous bëgg en fait ñu dégager les parasites parce que je suis désolé de le dire c'est pas pour taper sur qui que ce soit man parce qu'il y a des gens yo xam ne je les considère pas comme des patriotes au sens de patriotes qui, qui, qui ont. En fait, nous bugue le projet de passif. nous en réalité Ousmane Sonko. chaque fois, je dis que nous moytu Ousmane Sonko ci Ousmane Sonko tu bëgg ci wax. dafa Ousmane Sonko bëgg ci wax ci lañ koy en fait. dégg man déjà disqualifier moi tout ce qui semblent être avec nous, mais sont pires que la paire en fait. Mais ces gens-là qui nous divisent en fait. Moi, j'ai toujours dit dans mes lives, et je ne l'ai jamais dit contre personne, moi, j'ai toujours voulu rester qui ligne parti bien en fait. Parce que parti bien nous avons dañu jox nit mu ci kanam mu de Ousmane Sonko Ousmane Sonko que ou Ousmane Sonko inspecteur des impôts et joxuñu Ousmane Sonko nangam syndicat du dem Ousmane Sonko bu la neex Ousmane Sonko président du parti PASTEF kooku moy Ousmane Sonko kooku moy Ousmane Sonko Moi, am une vision am un projet ànd ak ay nit bokk ci PASTEF di jité PASTEF nekk président parti bi di wax ci turu parti bi di wax ci turu parti bi parti bi juddu ça fait 10 ans ji xeex ak Macky Sall Ousmane Sonko est resté debout le parti est resté debout nous ñu nekk de di Il di a une coalition di Dougou, di des di politique di job, de dame, avec son défaut ak son qualité ak ay manquement ak lu ci Nous avons un certain moment ñuy sentir des gens qui veulent nous faire croire et man j'avais l'habitude de le répéter sur ma live Ousmane Sonko ak Pastef kaasu café Qui la ce ku leen di jéem a tàggali café bi ak ndox bi wala ci projet si tu n'es pas dans le projet de PASTEF si tu n'es pas avec le projet de PASTEF je dis pas que tu n'es pas forcément membre hein. si tu n'es pas avec le projet de PASTEF tu ne peux pas être avec le président Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko du kenn ku dul kii jëmmal projet bi amul leneen du kenn ku dul dans jëmmal projet il fofu laay njëkk commencer que les gens arrêtent parce que à un dafay mel ni ñenn ñi soit dañuy patriote patriote soit ñenn ñi ñooy bëgg a dégg lu leen neex képp ku leen di wax que ne dafa am réeroo diggante Ousmane Sonko ak Guy Marius Sagna Ousmane Sonko El Malick Ousmane Sonko ak parti bi day wax lu ko neex. Bassirou Diomaye toog na su Souleye toog ne Ousmane déedéet mu wax ci ñuy toog di réunion mu ne nii ñu ne déet. ki a une haute autorité de régulation nga xam beaucoup ci parti bi muy professeur Ngouda qui toog nañu Ousmane Sonko des fois da nga koy wax bu ne déet nga wax mu ne la convaincre ma boo amee dëgg mu si ne la am donc c'est dans l'ordre naturel des choses mais il faut d'abord qu'on dégage toutes ces parasites là yi ils veulent nous faire comprendre que dans ce projet il y a Guy Marissania là-bas qui est un activiste il y a Biram Soleil qui est là-bas qui est je sais pas quoi Ousmane Sonko mi ngi ci prison am faalewu Ousmane Sonko bindul ci page Ousmane Sonko xoolul kii Ousmane Sonko wootewul téléphone Ousmane Sonko solul t-shirt bii lan moo tax defuñu couleur bii lan moo tax defuñu ñeneen c'est parce que kii déglu loolu mooy ki jàpp ne réeroo dafa am wala Pastef du décision en fait mooy ki la bëgg a gëmloo ne boo Ousmane Sonko boo gisul Ousmane Sonko du moom gaa mooy ñi ñu bëgg a gëmloo dafa am Ousmane Sonko am gars yi nit nag yaay jël sa responsabilité bopp Ousmane Sonko kenn du ko bëgg-bëggul Ousmane Sonko kenn du ko bëgg à travers nit Ousmane Sonko mënul ñoo ne dama yor parti politique ànd ak ay nit bu ngeen bëggee dégg wax leen nag ñii bu ngeen bëggee xam lu jëm ci sama wàllu yoon am naa ay avocat ñu xam leen nekkuñu Place de Mars bu ngeen sama wàllu wér-gu-yaram am naa ay médecin lépp lépp lépp mi ngi fi bu ngeen jaaxlee sax Serigne Cheikh Abdou mi ngi fi Oustad Dramé mi fi d'autres Cheikh Bara ñi ngi fi est len ngeen est-ce que vous avez déjà entendu une seule personne sérieuse ku bëgg Ousmane Sonko di Ousmane Sonko ca tambali ba ba mu wax lu ni mel mu dugg ci débat bobu c'est une bande de crétins yu nek ci réseaux sociaux yi qui pensent être plus patriotes que tout le monde qui pensent être les guerriers des fantassins des superman des je sais pas quoi je dis bien une bande de crétins qui n'ont rien compris et qui embarquent tout le monde. Qui te créent 10 000 faux comptes, 10 000 faux comptes, qui sont là dans les réseaux ils pensent être plus Ils rek nangam sangam rek comme ni ñi xeex ñi nag dem Ousmane Sonko camp Cap Manuel dem leen ngeen c'est ces gens là qui vont faire comprendre yow mi comprendre vous que jël nañ décision bi parté fat ñu ngay dem ñu ngay bàyyi Ousmane Sonko domam lu muy def jabaram nak yaayam nak di leen dugal ci émotion yo xam ci politique lañ nekk président Ousmane Sonko nee politique bu affaire émotion di leen dugal seen bopp que ne waaw ñom dañu ngay dem parrainage les Ousmane Sonko on en fait quoi gis nga duñu xeex ñu ngay def leneen ils vont taper sur tout le monde les vidéos sont là les témoignages du président Ousmane Sonko sur Bassirou Diomaye Faye vous pensez que ceux qui parlent ils sont beaucoup plus patriotes que Guy Marius ils sont beaucoup plus patriotes que Kenen, Kenen, Kenen, ak Touré ou Kenen, Kenen, Kenen. C'est ci politique là nous nekk en fait ce qui se passe mooy Macky day wure ñuy wure ñu nekk ci biir di wure ñu nekk ci biti di wure mu jàpp ñuy wure mu dugal ñu prison mu ñuy wure ñuy feebar di wure looluy résistance en fait Moi yow lu ñu la en tant que de Ousmane Sonko lan la ñuy xaar ci moom mun nañu ñun ñooy le changement être président de la République n'est pas une fin en soi ci man dama bëgg ñu soppi réew mi nañu koy soppee nag ay stratégie la parce que système est ñu jàkkaarloon xam nga lan nous ñun suñu responsabilité lan mooy responsabilité Pastef ak le président Ousmane à chaque fois bu ñu tollee ci une situation mu lu ils ont toujours été capables de mettre sur la table quelque chose en fait cette chose là qu'ils ont mis sur la table maintenant ku a apprécié. mais on ne peut pas satisfaire tout le monde en fait c'est ça qu'on demande à ce parti politique là c'est ça qu'on demande à notre leader nous en tant que militant simple ñu ànd ak moom ci xeex bi ñu bañ ñu bàyyi ñu bañ ñu seetaan ñun ñu bañ ko seetaan moom mu bañ ñu seetaan tey nag kuy woote bor dangaa bëgg a fay bor léegi jox nañ la occasion pour nga fay bor bi kii peut le plus peut le moins Bassirou Diomaye est notre candidat à la candidature ñu war a dem wutali ko parrainage citoyen ma fàttali ngañ dem ba Touré live na ci ku ne live na ci ñetti fiche de parrainage moo am ñetti fiche de ñetti feuille bi pour Elou locaux moi tout ce qui est maire et président euh, président conseil départemental départemental bi benen bi moy parrainage citoyen bi benen bi moy parrainage député yi boo 13 treize députés ils nañ la parrainer 13 députés ils nañ tok parrainer en 5 minutes mais dafa am leneen sa luñu wara régler ba pare moy ces gens là yi don wër qui pensent être plus intelligents que tout le monde qui pensent que que c'est des gamins que l'on crée c'est pas du politique c'est des novices xamuñu dara kañ di plan B plan B vous allez laisser Macky Sall comme ça gars il t'amène un plan B il t'amène El Malik, biram Soleil, Abbas Guy Marissagne, Sagna Bassirou Diomaye et ces mêmes gens là reviennent sur les plateaux télé pour dire ah je l'avais dit da ngay Tu da t'as rien dit t'as rien dit parce que tu penses que les gens de Pastef là xalaatuñu tu penses que les gens de passé ñom dañu tek ont di ay dof lañ xam xalaatuñ plan B xalaatuñ dara ci plateau télé non je toujours dit parce que il pas il faut pas que nous def il faut nous plan B parce que nous, mais il passe nous, ñom pour nous, que ñom nous ñu mel nous, nous, nous, indi fi ñu ne ay dof lañ quoi ñom nous xalaat nous, nous, nous ñi pourtant di waxon na di waxon na parce que nous ko wax parce que stratégie mais nous, koy def nous, nous, am nous, nous, am fu ñu am fu ñu vous pensez que Ousmane Sonko xamul Macky Sall xamul contexte politique bi xamul li xew tegul ay stratégie vous pensez que les gens Pastef appareil bi xamul li xew vous pensez que les gens n'anticipent pas Macky Sall lu mu teg lu mu teg ñu teggi teg bu ñu mës a réer mbir benn affaire nag ñun ñooy wut ñun ñun ñooy wut 5 lañ leen indiloon ne leen cinq fiches la ñuy récupérer te bu balaa dara di am nag parce que sénégalais du lire je rappelle que bi ñuy tànn Birame Souleye on nga passé lu ñuy def xel la Ousmane Sonko xam nu baax lu muy def les quatre candidats yeneen yi dañu bind ñoom ñett ñeent ñëpp ne booloo cest à wax na ko mais il faut ñu répéter ko ñoom dañu bind bokk ànd booloo ne Ousmane Sonko de ndogal bii moom meilleur parti bu ñu jox ko muy dogal lam lamu mu sant trente woon. que ne dañu dem jëli cinq fiches de parrainage parce que dañu nekkoon ci combat politique ak Macky Sall gannaaw jël nañ cinq yi waxtaan nañ ba ñun ñeent ñi bokk nañ ànd juboo déggoone ne Bassirou Diomaye la ñuy dem parrainer pour mu nekk candidat à la candidature mu am lu ñu war a leeral li def Bassirou Diomaye candidat à la candidature dindiwul Ousmane Sonko ci jeu politique bi jamais taxul ñu ne le président Ousmane Sonko duñu ko parrainer bu ñu neexee ñu la parrainage di à minuit Ousmane Sonko bu ko ñu parrainé ko à 23h55. parce que am nañ ay député yu ko parrainé mais j'ai toujours dit ici que pas ni lay xeexee boko songé mu ak yow mais du té mu ci depuis ba ñu dañuy depuis ba ñu dañuy door ay missile missile parce que xel suba revue de presse yi la naan la Bassirou Bassirou Bassirou dinañ dóor benn musique ils vont nous sortir quelque chose xaw ma lan la préparez-vous à ça mais nañu focus suñu communication mais Pastef lu mu mës a fonctionner Pastef dañ ko yàgg di song Pastef ci xeex la mës bu de ñu ray militant mi ngi ñu dajji ñu dajji siège wala ñu dem kër yaay Ousmane Sonko def fa dara wala ñu def wala ñu des 94 milliards l'affaire de de des audios comprendre nga ñew l'affaire nga nga nga ñun am dafa am politique bu ñuy politique pour jël réew et ñun suñu la capacité cette capacité qu'on a à allier les deux en fait être capable de protéger le projet, être capable de protéger le président Ousmane Sonko. Parce que ne pensez pas que c'est pas parce que nous libérons que continuons de protéger en fait. Aujourd'hui, Ousmane Sonko fait partie des hommes politiques les plus médiatisés au monde. Nous Vous pensez que c'est la TFM, la RTS Si nous, nous avons fait. À travers TikTok, à travers Twitter, à travers Facebook, à travers tous les supports de communication, tous les supports de communication en fait. gis nga gars yi TikTok gis nga le plan Ousmane Sonko boo bëggee wax ci moom te doo ko tooñ parce que nit dina jàpp ne bëgg na Ousmane Sonko di ko waxal ba tooñ ko nit dina jàpp ne lépp lu ñuy def lu dul libérer le plan Ousmane Sonko jàpp nga ne yow yaa nekk ci fi nekk plan Ousmane Sonko nekk demal nga gëstuwaat ko en fait le plan Ousmane Sonko dafa joxe boppam pour projet bi loolu lay xaar ci yow. man ne woon naa fi ñu bëri ñu naan waaye Ousmane Sonko nii yaakaar Ousmane Sonko c'est un discours guerrier bu génnoon dina leen ne hey réglé leen Ousmane Sonko du xeex rek a ko indi fii mu yegg si xel xalaat teey am jom fit fu la fayda surtout am respect ci Sénégalais yi am respect ci kilifa yi am respect ci képp koo xamante ne nii cër boobu am na ko sa diggante ak yow mu wax ñu dégg kenn du fi inventé kenn mu ne kuy def lii bokkoo ci man kuy def lii bokkoo ci man Ousmane Sonko du kuy fen Ousmane Sonko du xeetu politicien buy dóor maanaam pour wax nii presse bi ne ñoo ñi ànd ak man pour wax ko lu wax lu mu gëm la bi mu une grève de la faim une grève de la faim ñi ñu yaakaar politique je sais que le président Ousmane Sonko a une grève de la faim foowantuwul defantuwul bu laajoon mu grève de la faim ba dee day grève de la faim ba parce qu'il est comme ça waxu Ousmane Sonko bu ñu koy jël di relativiser quand il dit que quand tu fais ça et ça et ça tu fais pas partie de mes de mes militants ou sympathisants tu t'en fais pas partie tu peux dire ce que tu veux là tu peux dire ce que tu veux yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam bu ni nii ak nii ak tax tuddal Ibrahim tuddal mohammed Abdallah tuddal lula la neex yonent yàlla Insa bu ne li moy tax nga nek chrétien tuddal Jean tuddal Paul tuddal lu la neex tuddal Lucie tuddal Georgette mais sori nga ko li nak moy deug tu peux dire ce que tu veux tu peux dire finaan pourtant Jésus sikkim bi dafa rafet pourtant yéen ma xam dégg naa mom da ko don jël di ko il était beau pourtant ni wax waxal lu la neex mais n'empêche nekkoo ci légui nak les masques vont tomber parce que c'est nga projet bi projet bu tollu nga fa ak fu projet bi di dem fay ak ku ci ci lu la nu ñuy a rek ngay gëna xat ci projet bi nu ñuy gëna a rek ngay sori projet bi nu ñuy gëna démé rek nit ñi di que ne c'est de la responsable de tout un chacun en fait en tout cas quand c'est le passé qui a décidé c'est que c'est le plan Ousmane Sonko quand le passé décide c'est que le président Ousmane Sonko moo décidé en amont ne leen def leen nii la Pastef di doxe nii pasteur de di tu peux nga wax lu pasteur. Pastef mais c'est un parti qui est très très très très organisé c'est un parti qui sait ce qu'il veut c'est un parti qui xam quand je dis un parti je parle pas seulement des responsables hein. je parle de tous ces militants de toutes ces braves femmes de toutes ces tous ces hommes là yi souvent ils prennent même ànd seen biir jël ay décision ne serait-ce que pour mu def c'est ça la force de Pastef en fait c'est des gens yu bëgg projet bi xaar ñu Almaañ xaar ñu Birame Souleye xaar président Ousmane Sonko dañuy dajalo dañuy cotiser dañuy defar dañuy propagande dañuy communiquer dañuy joxe xaalis dañuy dimbale prisonniers dañuy def dañuy def dañuy def dañuy def yooyu c'est de manière isolée aujourd'hui on a l'occasion de faire ensemble lu yomb lu yomb mo lañ don xaar c'est quoi la responsable du président Ousmane Sonko c'est de nous dire que ce projet-là va participer en 2024 c'est de dire qu'on va gagner. C'est de faire en sorte qu'il soit candidat. Ce combat-là, on va continuer à le mener en fait. Mais en attendant, nous sommes liggéey am na lu le président Ousmane Sonko laa nous na parce que Bassirou Diomaye sant ñu ko parce que fu nek la Bassirou Diomaye nek c'est ça en fait le paradoxe pour nous comprendre le président Ousmane Sonko Il est ñu parrainé te daf ñu Il yombal parrainé leen benn nit mooy Il bi am 111 ki koy jëmal di Bassirou Diomaye Faye quel mooy Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diomaye Faye fait partie de ces fils du Sénégal qui ont togg projet bi jëmmal projet bi Bassirou Diomaye est le prototype du patriote mais mais mais mais mais mais à tout point de vue en fait sur le plan comportement déjà sur le plan militant xam-xam ñu né la mom la tay na ñu né la mom la yaru na ñu né la mom la am jom ñu né la mom la amna na fula ñu né la moom fit ñu né la la c'est le gars qui a jamais démissionné en fait jamais démissionné en fait c'est le gars qui a toujours été au côté du président Ousmane Sonko avec ses qualités avec ses défauts mais il a toujours été là en fait moom la ñu war a parrainer moom la ñu war a parrainer le président Ousmane Sonko moom la ñu war a jox parrainage par million là, wax a y' a pas il y' a pas à comprendre parrainer Basir Diomaye c'est parrainer le projet c'est même pas parrainer le plan Ousmane c'est C'est parrainer le projet parce que projet Pastef mënul dem pas fi le plan Ousmane Le projet Pastef mënul dem pas fi le Pape qui Touré projet Pastef Le may projet Pastef mënul dem pas fi Hannibal Le projet Pastef mënul dem bàyyi fi Tata Amidja projet passé, mënul dem bàyyi fi bàyyi fi bàyyi fi ndongo mais projet passé, mënul dem fi système bi parce que nous, koy yobale gars on nous demande lu simple Il y' a pas de débat Il y' a pas de problème dans Il y' a pas de problème entre les entre les responsables y' aura pas de problème entre nos militants Il n'y aura pas de problème entre nos sympathisants si les gens veulent créer des polémiques nit na am tu bloques tu t'effaces C'est un choix à faire entre le choix du président Ousmane Sonko ak leneen lu nit plus Macky Sall di gis que ne on est fort autour du président Ousmane Sonko plus xol bi di gëna dag dagg muy gën def sorte yi mu def muy gëna a muy gën a rey plus ñuy gëna ti plus ñuy gëna am doole plus ñuy gëna a gis que ne tay paré né parce que bi ñuy jàppale président Ousmane Sonko xalaatuñu woon ne dinañ yegg fii te loolu mooy suñu ndam pour ñu japp né Barké démb dañu am défaite bi ñuy le président Ousmane Sonko xalaatuñu woon ne tey dinañ toog fi yegg fi ñu yegg on est toujours dans le jeu ñun ñoo yëre jeu bi personne n'existe même l'opposition je ne le dis pas méchamment en fait. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Utiliser les médias. Ça, c'est... ils sont dans le rôle en fait. Nous, il y a un combat qu'on a entamé depuis 9 ans pour libérer ce pays en fait. Tu connais comment nous libérer le Sénégal. Ce n'est pas de l'éloquence. Ce n'est pas solo borafet. Ce n'est pas gay ham ham. Ham ham manque au Sénégal. Ham ham manque au dans la paire. Ham ham manque au dans, dans PDS. Ham ham manque au dans PS. Nous, nous, nous, Sénégalais, ils ont des gens, ils ont des le ils njiit mooy suñu problème mais njiit moo xam wan nga nu bëgg nga réew mi ku bëgg réew mi mooy kuy teg sa bakkan mënuloo gis ku teg bakkanam pour réew mi ngay xool kuy wax mënuloo gis ku teg bakkanam ngay xool kuy yor xaalis kii bakkanam la teg addinaam la teg njabootam la teg honoram la teg kenn ci ñoom du fi toog ñu naan la yaa viole yaa nangam moo ko dékku ngir réew mi yaay violeur mu dekk ko yaay terroriste mu dekk ko yaay taliban mu dekk ko do murit do tidiane ibadu nga do li do la mu dekk ko chaque jour bo duggee ci tiktok mom rek lañuy saga di saga yam di saga papam ba nek allah yalla na ko yàlla yërëm moom ñaam fa fekk ak ko fa fekk ñep amul amul amul lu mu dajut il est en prison mais pourtant il demeure il reste parce que liggéey bi ñu liggéey la liggéey bobu nak ku mën a liggéey loolu yëpp ñu rey la tëj la def la lu ne xam nga luñ la sant sa gis nga parrainage bien. ah ko war a ko war dañ ko ils ont tout fait pour étouffer le Pastef même les làmb pire bien c'est bien ñu hein. seetaan musique yëpp ñuy def ni mais ils ont compris très tôt que gis nga le combat Modou à Ama balle, c'est un combat très particulier dans un contexte particulier la seule fausse note qu'ils ont fait c'est qu'il fallait laisser ce combat là peut-être en janvier ils l'ont fait avant dañu am seen plan yàlla am ay pay ñoom ay dof ils réfléchissent pas parce que nous fi ñu teg sénégalais sénégalais weesu le foofu pouvoir comme opposition dafa am ñoo xam ne dañu les fii sénégalais Ousmane Sonko chance mu am mooy dafa ñëw set jël sénégalais yi def leen nawle moo sénégalais du di ko dégg mu leen di en fait il faut que réussisse cette ce parrainage là il faut qu'on réussisse que vraiment les lépp luy diversion watati patata ñu arrêté ko ñu ko gis nga yéen patriotes yi militants sympathisants yi bëgg président Ousmane Sonko c'est à vous d'être exigeant ngeen am fulla la fayda ba suñu genre yi kenn du leen yàq ba man du ma am lu tuppe ñëw toog fii ci réseaux sociaux yi di am lu may wax di jaay gudd fan yéenay am seen fulla ak seen fayda aussi le président Ousmane Sonko. yéenay dimbalé le président Ousmane Sonko le parti bi xeex bi dafa métti dafa war a dans trois mois. y a des gens qui pensent que dañoo wara a éternel ay éternels éternel ay éternels activistes ay casseurs on veut passer à autre chose en fait. Dans trois mois, quatre mois, on doit prendre sur nous la responsabilité de changer de ce pays-là, accompagner le président Ousmane Sonko pour changer le pays Nous, nous aussi le président Ousmane Sonko nous le parti bi dimbale suñu man comprendre avec le petit xoo le président Ousmane def mais à partir du moment où nous nous def leen nous il non non a non a non vous voulez quoi en fait. Vous voulez quoi Pastef, c'est de la responsabilité. Pastef, c'est un parti qui protège. Pas Bible Fall bi di wax ni pour ngeen xam Ousmane di fonctionner par rapport ni ay audio génnu la bi demee noonu Pape Djibril Fall toog na bi Ousmane Sonko di génnee son livre moom mooy tok de Pape Djibril Fall mun nañu Bassirou Diomaye jëw na ko Pape Djibril Fall dañ ko bëgg bolé ci ñinga nga xam ñoom ñoo challenger ci livre bi mu ne leen non non non non il faut le ce jeune là il faut le protéger parce que dafa déggoon discours gis posture c'est ça le président Ousmane Sonko ko am yërmande ci askanam la ko am responsabilité ko politique jaralul yenn yi la worna yalla bu doon audio wala lenen la gars yi waroon a pour def ko pour am ci un gain politique politiciens yépp dañ koy def mais mum day xol derrière ses pères de famille ses fonctionnaires ses responsables pour le dire que politique jaraluma yenn yi c'est ça en fait c'est une nouvelle façon de faire la politique la responsabilité

continuer combat bi la pression bi nous avons ñu koy jëmmal mu nekk candidat candidat pour le moment on a un candidat à la candidature qu'on doit parrainer il faut le parrainer partout bu le parti c'est un parti très organisé moment venu voulu nous wax naka la la nous ñu jox outils yi nous jox mécanisme parce que c'est un parti qui est très organisé gars Pastef du am problème mu parrainage ñun xam nañ ni ñuy parrainer ñun dañu xarañ loolu lay dëgg ah macha allah dañu xarañ ku leen di wax leneen lu dul ndigal lii jëfe mu ngi yàq fi mu toll di moom kenn abatul excuse wala di wut ay di chercher la petite bête Ousmane moo wax parti bi def nañ ci topp point point lii mooy wax ci laaj bu mu gudd mais lii mooy wax ci lii mooy wax ci. lenn rek laa bëgg def benn digression lii mun ngeen ko dagg ngeen dagal ma ko ci tiktok bi parce que dama ko bëggoon def lu mais doon ci profité def benn affaire balaa maa jeex Badara Gadiaga dafay fen fenkat la xam nga Badara Gadiaga ñun amuñu temps pour ñëw di la tontu amuñu temps pour ñëw di polémique yow parce que dañoo jàpp ne yow doo arrangé mais Badara Gadiaga mën nga fen trop déjà yow xam nañ fi nga jóge ak fi nga yegsi toog nga fi ne. Pastef ak DGE dañuy manipuler té batay tey ñu fan la Pastef manipuler ak DGE barke demb genn nga di fénal Juan Branco di profito ci ak poste bu mu génne Juan Branco n'a jamais dit que noir duma até Juan Branco dañu ko japp parce que li léral bu ndaw la rek pour gars comprendre Juan parce que Badara Gadiaga dafa mëna a c'est un menteur en fait Juan Branco dañu ko japp yóbbu ko police mu ne day grève de la faim day résister soxlawul soxlawul ku ko ko défendre soxlawul dara fay résister Juan Branco mu mu ba mu ba def na ci postam né le blanc le petit blanc le petit blanc wàññi boppam tuuti bopam pour yëkëti que ne mu ngay dem di défendre un leader politique un géant leader politique ñu nak di dugg ci say débat parce que tay sax waruma le won duggal fi mais dama bëgg a comprendre ben affaire ñu melni mom moom tax may wax ñu melni yenen yeneen médias yu melni mom ñu melni Babacar John ñu melni ni ñeneen ak ñeneen ño xam dañuy laqatu ci laqatu ci leneen lu ñuy làqatu je profite de ce de cela pour vous dire que ils vont vous ils vont ils vont ils vont dañ leen dóor ay ay ay ay des choses yo xamanteni boko nii da fay am logique mais c'est de la manipulation en fait bu fekkee ne am nañu haine le président Ousmane Sonko ñoo ñoo ko gën a ci adina parce que c'est des gens, ils pensent pouvoir manipuler ce peuple-là, en fait. Je veux juste leur dire, vous vous fatiguez, en fait. amuñu temps pour nous di peut-être wax sénégalais yi indi li ngeen doon seeni temps. ak li d'or. ak suba nous manipuler dinañu def dara parce que APR mënu ko marqué wax ne leen ko da Benno presse utiliser pour diversion basiiru moo baax moo gore moo yaru moo tabe mooy waaja kese basiiru mooy basiiru dossier bu mënti indi basiiru basiiru jubóowul ak gii gii jubóowul ak biram sulay biram sulay el malik lu tax ñu jël kii jëluñu kii kii moo gañe fii gañewul fii basiiru gañewul dëkkam mais gañe kii focus ñun basiiru moo ñu neex fay biram pendawaagaan kese basiiru rek waaw lu ngeen indi ñun bas baax basiiru joomaay mooy la ñuy pare ne amul leneen seeni ñoo amul leneen waaw Basiru daa am sikkim ibaadu la du murit du dugg fee du dugg fii du dugg fii c'est projet ñun suñu projet bi amul ñun suñu projet amul kii pour ngay wax ñun suñu projet ñun suñu projet amul amul tarixa suñu projet diine yëpp ay diine suñu projet katolik la suñu protégé proté suñu projet protestant la murit la tijaan la laayeen la tukulóor la séeréer la joolaa la xalpulaat la xalal njaago la suñu projet lépp la Bassirou Diomaye tay moy suñu projet moy jëmmal projet bi donc rejeté birem Souleye mo bind ne Bassirou la kana bu Ousmane décidé gi Marius Sagna bind ne Bassirou la Abbas bind ne Bassirou la El malik bind ne Bassirou la kon jeex na fii débat amu fi man damaa baax ni rek diko wax mais xamna naa ne patriote moom yooyu dépassé nañ ko kon gars yi fiche bi 111 la. nañu wax suñu yaay yi suñu papa yi suñu mère yi suñu maam yi àdduna yépp ñun lañuy ñuy xaar pour ñu parrainer à nous de faire le job ko nu mu gën a rafete boole ci nag ak kokkali bu amul fen gis nga Macky Sall lépp lu waaye di def ci kokkaliwu ko xoolal nekkoo ci dara kokkali mooy li gën a yomb jarul xeer jarul dóor nañuy def ni seeni seen rek di sànni say pik amul saaga de mu <laughs> jaru ko sax ku saaga ngeen ne ko garaaw ndax da ngay parrainer ñu ne waaw ñu ne ñun parrainer jarul saaga jarul xuloo jarul xeex ñun ñu ëpp ci réew mi waaw na nga nag nu ko waaye mënee rek nu ko waay mënee nag bu immaturé baax na bu amee maturité baax na nu mu mel baax na mu mel baax wax yi daal mooy pare na rek waaw nañu pare na rek loolu moom moo doon laaj bi gars yi maa ngi di bëgg bu baax di leen ziar di jéggalu bu fekkente tene am na lu ñu ci am na lu ñu ci am na lu ñu ci am na lu ci am na lu ci dëng TikTok bi ma leen koy demander ñaan man je viendrai dans TikTok def ay live ak ñi ils ont compris le projet les gens yo xamanté dama bëgg di live ci TikTok bi comprendre mais le débat maintenant c'est les parrainages le débat c'est comment valoriser Bassirou Diomaye comment faire en sorte qu'à travers Bassirou Diomaye que le projet puisse briller en fait comment être ensemble et comment aussi continuer le combat pour que le président Ousmane Sonko xam ne ñu ngi fi pour que ñu inciter mu candidat bu demee ba ñu génn ci lii ñu jël suñuy fukki député ak ñetti ñu pare na ko mu dem élection ñu duma waa ji duma ñëpp jël réew mi tabax ko Sénégal jëm kanam donc gars yi loolu moo doon live maa ngi bëggee di leen ziar di leen jaajëfal maintien rek incha allah daa leen jëf tawfeex waaw am na ku ma ne ma insister sur le retrait des cartes électeurs yàgg nañu ko wax Ousmane Diagne di ci def liggéey bu am solo Idi et tout le monde Abdou tout le monde Baaka tout le monde tout le monde di ci def liggéey bu am solo gaay man j'ai toujours dit que ñaar rek mo fi nek xeex physiquement wala dem élection l'option première du président Ousmane Sonko a toujours été d'aller aux élections ba ñu génn ci élection législative la ñu focus 2024 ça veut tout dire c'est le premier génn né focus 2024 ça veut dire qu'on va aux élections 2024 ñu dem gaay top ko diko ko diko di la fem Mame Mbaye Niang kërëb kërëb wër ndomb pour primo votant ak primo inscrit yi mën a ko kon kooku dafa mës tek l'option dem élection l'option d'aller aux élections dafa mës nek lolou loolu moo mës option passif donc man j'ai toujours dit que yoral ñaari rek amna bo xam mënul ñak mais amna bo xam mën na ñak xeex ak Macky Sall mën na ñak ça dépend gis ngeen ni mu démé mais voté mo mënul ñak motax tax ak noo fooy mënti positioner wa rek yoral sa vote parce que dina am foo xam buñ fa tollé lolu rek mom moy compter té man gis nga man am lo xam bugguma ko dund té bugguma ben patriote dund ko mooy ñu dem ba wara voter ñu wara a fal le président Ousmane Sonko ak li nga xex yépp yow voté wo man lolu ñaanaluma ko kenn ko bëgg Ousmane Sonko ñaanaluma ko ben patriote ñu dem ba le 25 février 2024 ñu ngay dem élection patriote yii rek solo solu sañse def lu baax ne ña ngay voter ji pour protéger sen vote yow nga wara a xol sa bop li nit ñi daj li ci nit ñi dee li nga ci sonu li nga ci wax li nga ci bind li nga ci li nga ci daj yépp ñu né gaaya yaa ngay voté ci yow voté ji man ñaanuma ñaanaluma ko benn patriote parce que xam man bu doon man xam naa fi muy toll ci man très sincèrement je ne le souhaite à personne souhaitewuma ko benn sénégalais à plus forte raison benn patriote ñu dem ba le 25 février 2024 nit ñi di voté ji pour faire le président Ousmane Sonko yow voté woo ñu dem ba fii ak 10 ans 15 ans 50 ans ñu avons ñan ñoo le président Ousmane Sonko yow voté woo pour la symbolique pour la conscience pour l'histoire man ñaanalu ma ko benn patriote moo tax bàyyi leen ci xel bu baax ñi nga xam moom mënuñu ko mënuñu ko amul problème mais surtout ñi ko mën jamono ci ñu toll nii dem jëli sa carte électeur téye wax sen waa ko ñu jëli téye ko le président Ousmane Sonko ah non le président Ousmane Sonko war nga xolat sa très sincèrement très sincèrement merci au président Ousmane Sonko merci à merci à tous les patriotes on reste dans le jeu on continue faire de la politique en fait Wow. président Ousmane Sonko xam ni ñi ngi mission bi ñu jox ni parce que xam na ne am nañu ko mëna a ki kii le plus nak peut le moins donc gaay jaajeuf loolu mo mo doon live di leen bëgg di leen siyaar tawfeex TikTok moom fu ñuy fay live bi sax